chaque jour bu nga gisee toujours élégant. <laughs> merci beaucoup merci ma fille. nga ñëw initiative Clara bi tey nan nga vraiment xanaa am contentement bu mag di leen gërëm bu baax waa Sénégal di kontaan ci ki ñu invité Clara di xale bu am góor góorgóorlu boppam ba agsi xale boo am yar jël nag tubaarkàlla bës bi jagle ko sama géer Ndeye Bintu Cissé lii moo tax man ma ñëw ma ñëw bu nga si ko ànd ak sama rakk. comme euh, Tata dafa am benn thème nag boo xam ne dama waxoon su ma la gisee rek dama la see interpellé parce que da def lu rafet way sa bon tey ñu gis benn bon boo xam ne dañ ko maltraité dañ ko dóor dañ ko dañ ko kii ban message kay lancé. waaw ñu ñu bokk rek yàlla rek moo moo xam ki gën nous sommes tous égaux devant Dieu nañu defante yu baax kenn xamul koo gis jàpp ko ndax ñun ñëpp benn lan ki dem di bind bu doon sagom moo lay bind loolu yëpp yëfa suñu borom la waaye yëpp rek na bu war a rafet dana war a boole yëpp mu rafet. ndax ñoo bokk lépp. mais ba nga gisee wala gis non j'ai pas vu ça parce que dama tukki woon soog waaye boo ko dégg ci dégg-dégg rafetul te loolu moomuñu ko c'est le pays de la teranga. boo gisee xale yi nag di la tiktok sa biir. <laughs> dëgg la samay xarit lanu samay xarit lanu samay xarit lanu. géwél dafa am point waaw yëpp yëpp yëpp yëpp. <laughs> kontaan naa kontaan naa merci beaucoup merci